alors euh, dama toog euh, fan yëpp damay xalaat ci des personnages yoo xam ne euh, ils peuvent nous enrichir de leurs positions et expériences mais am nañu assez de recul et de et de distance pour mun ñoo jox des avis éclairés sur pas mal de de sujets après ci la sama xel dem ci yow alors dama la présenter Euh, comme avocat ancien bâtonnier euh, lan nga préféré me présenter la comme avocat ancien bâtonnier ou comme euh, président du mouvement Sénégal bu bu bu bu bees aujourd'hui ban posture moo la gën a bu ñu cette actualité dëgg dëgg dëgg avocat ak ancien bâtonnier Sénégal bu bees c'est en veilleuse c'est ne même plus en veilleuse Sénégal bu bees daanaka amatul activité c'est c'est dissous non non ça n'existe plus parce que Sénégal bu bees c'était pour un projet politique donc bi ma defee recul bi euh, depuis quelque comme quatre ans après j'ai pris la décision de d'abandonner définitivement la politique. donc da nga arrêté politique définitivement. politique moom waaw politique moom tàggoo naa ak moom. Euh, vous ne serez plus tenté de de revenir. déedéet politique politique la tàggoo léegi dootuma candidat ci dara waaw dootuma candidat ci dara léegi nag je reste un citoyen très actif parce que. ku nekk ci réew euh, mënuloo mënuloo mel nii li fa xew concerné wu la surtout nag quand même comme ni nga ko doon rappelé am na engagement yu bëri yu ma def yoo xam ne am na responsabilité boo xam ne war naa ko ci assumer quand même parce que mais en tant que citoyen actif waaw loolu daal. mais mais lan moo tax nga jël décision retiré de la chose politique euh, da nga ci am déception. Ouais, non de de en fait. c'est-à-dire que souvent loolu la ñuy di xalaat mais c'est pas c'est parce que. man bi may engagé wu à la base engagé wu woon pour def politique j'étais société civile dañ dem ba ci biir ma gis ne mbir mi ni ñu koy doxalee ci politique demeewul woon ni ñun ni ñu ko gisee ñu ne kon ma ne kon xaar ba jéem mais je jamais eu fibre politique donc jéem naa gis naa ne bon euh, li mu laaj pour nga am ci résultat dama ko dama ko tere sama bopp c'est-à-dire politique Sénégal Sénégal pour nga am ci résultat dafa am lu mu laaj dafa am ay jikko yu mu laaj dafa am melin bu mu laaj dafa am euh, nooy jëflanteex nit ñi muy am lu mu lay imposer par exemple tey politique boo koy def Sénégal te amuloo xaalis bu bëri booy joxe ah dafay doy waar te man suma liggéey rek laa am ak suma ñaq aw ma poste sàccu ba xaalis donc loolu mënu mënu mënul wëy ba pare teg si tamit euh, euh, jikko yi mu laaj pour nga am si résultat maanaam di njuuj jaaj quelque fois nga wax loo xam ne gëmu ko wala nga wax loo xam ne du dëgg ci yow loolu daal dama kiw euh, jekk jekkuwuma ko daal du lu ma bëgg a def mës naa wax Pape Alé Niang en 2007 d'ailleurs dama ne ko candidat la parce que dama yaakaar ne ni ñu defee politique war nañ ko mën a améliorer waaye su ma demee ci biir ba politique ma nar ma yàq ma bàyyi ko. 2007 et c'est ce que vous avez fait en 2018. c'est ce que j'ai fait c'est-à-dire dama xool xoolaat ko. natt ko xam ne je ne suis pas fait pour ça parce que tamit àdduna da da ngay évaluer sa bopp parce que tamit loo jëm jëm jëm da ngay xool boo duggee ba ci biir nga def recul objectif ma xool xam naa ne c'est pas fait pour moi loolu moo tax daal ma bàyyi ko. mais euh, est-ce que mën nañ la considérer ba tey comme un membre actif de la société civile sénégalaise. ah absolument kooku moom kooku nag wax dëgg yàlla nag kooku je le revendique parce que am na nag lu def ci biir société civile fay bu ñuy wax société Sénégal. ah yaakaar naa ne forum civil loolu moo ko indi fii Sénégal waaw euh, ñun ñoo créer concept société civile fii Sénégal revendiquer ko structurer ko ba ñu bari dugg ci waaw donc loolu am nañ ci nag quand mën naa ko du sax revendication je veux dire man boo bëggee nekk un actif sans être dans la société politique posture boobu rek nga mën jël moo tax man je suis revenu à ma posture exclusive citoyen acteur de la